ñu ngi ba léegi ci mariage u Kodou l'actrice de série famille sénégalaise ki ñu fi fekk nag euh, c'est l'une des plus grandes actrices au Sénégal ci paysage euh, li nga xam ne moom moo di cinématographie bi soxna Batoor national la ñu ko tuddee c'est très rare ngay gis actrice bu ñu jël national dëkkantel ko ci métier donc moom nag euh, sénégalais dañoo am ñu ko teg am fu ko dugal ci seen biiru xol soxna Batoor ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay fekk ci mariage u sa sa collègue sa xarit sa sister nga xam ne moom moo di Kodou tey yan kàddu ngay njëkk a yëkkati maa ngi leen di nuyu tout d'abord di nuyu ñëpp di kontaan ci ñëpp di jaar ñëpp bu baax baax a baax a baax baax waaw di di wax koddu euh, rek ne ko di ko wax ne sëy bi yàlla na barkeel ba mu jur ci ay njaboot yu bare bare bare bare parce que bu ñu takkee koddu mu fekk mu fekk ko mu nekk tournage diggu tournage mu takk ko suñu fierté la suñu sag la kon di ko ñaanal yàlla sàmm ko bàyyi ko jëkkëram suturaal ko ba ñu am ci ay njaboot yu barkeel ci waaye kaay hormis hormis ngeen koy dundee ci plateau yi yéen jàmbaar la ci. waaw macha allah jàmbaar la ci ndax euh, nekk jàmbaar tax na mu def euh, première saison def deuxième saison def li nga xam ne nii moom moo di troisième saison kon kooku jàmbaar la. waaw nit la koo xam ne nii dafay kaf foore ñëpp lay kafal foore taan kon fu mu nekk ambiance 100 pour cent moo fay am nitu jàmm la nitu salaam la. waaw waaw ko tout à l'heure avantage yi série yi am moom mooy nit nga xool la bëgg la ba tàgg la ci tendance la léegi boo joué série quelque part après première saison sax mën nga am chance mu tàgg la yéen ñi nekk ci biir milieu bi mu ko waral lan ngeen ko nan ngeen ko gis observation la ci parce que wërsëg la parce que léegi actrice rek la ñuy tàgg ah non non dakkuñu actrice que da nga actrice wala seen mariage siiw <laughs> waaye ñëpp la ñuy tàgg mais lan moo secret bi nekk seulement rek ñu ne heure ménage. non moom bu jotee rek yomb sëy moom bu jotee rek yomb xëy na yàlla dafa doog dafa ci ñoom ne leen da ngeen di feeñ télé da leen di gisee loolu la rek sëy moom bu jotee rek yomb. soxna Bator yow yaa ngi première actrice ngay joué mooy nit ñi di la jéppi wala nit ñi di la bañ mais boo génnee nii naturellement nit ñi dañ laa bëgg loolu lan moo ne si ginnaaw parce que li ngay joué mooy actrice bu bon yaay véhiculé yu ñaaw yi am ci biir Sénégalais yi bëgg na loolu am kuñ la teg ah, pour yow lan moo tax nga am loolu. la ñu teg ak balaat. <laughs> Malick ak balaat. da cee lépp xale koy def ci nit xale doo ci fii ñëwul ñëwul. Then they go. When you might book it. waaw. yow C'est bon. Du leer muy allo. Peso. Di dafa ñuul de. Waaw. souris bi xool ko def foofu noonu bi Suri. Tässä Suri mukana vielä teemme. am jël ma fii am jëlaale am am ñu ngi génn ñu ngi génn waaw wala may leen ma rëdd sa kanamam bi tuuti. ah non non non. ana ummi ana ummi xaar leen tuuti ah. l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur. Setsima TV, xibaar yu